nobalee ak nu mu baaxee tekki ko nekkul loo xamante ni lu gën la donte kon léeg-léeg dafay nekk solution te mbokk yi xam ngeen ni jamono jii ñu toll fase bi bari na lool boo dégloo sax wala ngay seetaan wala ngay gis instant yi télé yi télévision yeeg rajo yeeg yëpp moom la ñuy waxtaane ba fan yee su ma juumul maa ngi dégg ñu naan 344 45 cas fase dina am par jour te ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy dem tribunal bokkut ak fase yi nga xam ne dafay am ci biir kër yi te kenn du ko yëg kon loolu ku nekk xam na ne jéggi na dayo loolu loolu moo tax nag ñu bëgg a xool lan moo tax cause yi nga xam ne mooy waral fase gu bari gi il faut ñu xam lan mooy waral loolu ndax xëy na fase moom du jékki-jékki rek am dafay am lu koy waral te fase gu bari xam ngeen nag bu amee ci dëkk yaay yi sax dootuñu wóolu maye seeni doom waaye borom kër yi takk sax dootuñu wóolu takk ndax tem ñu yaakaar ne ñoom it dañuy topp ci mbir moomu loolu moo tax tey ñu yokk ko taxaw ci tem bii tey pour indil leen ko li nga xam ne nag moom mooy waral fase bu bari boobu bi ñu defee suñu gëstu ay point la yoo xam ne bu fekkee waxtu bi may nam fas yéene nañ ko ànd ak yéen jubbi ko benn par benn bu fekkee waxtu bi mayuñu ko tamit fu mu yem rek ñu yem solo weneen yoon incha allah bi si njëkk mooy cen yu cher yi xam nañ ne bokk na ci liy waral fase yu bari yi ñaareel bi mooy bañ a ànd ki nga xamante ne moom nga war a mën a àndal maanaam adam ixtiyaari sharikil munasib nit booy takk dangay takk koo xam ni yaakaar nga ne bu ngeen sëyee seen diir bi diiru sëy bi dina nekk loo xam ne bu yàgg la bu yàgg lay doon ñetteelu tomb bi fas yéene ñoo waxtaane suu muamala min tarafi ahad al azwaj léeg fase yi li koy waral mooy ñaar ñii nga xam ne dañuy dencante kenn ci ñoom ñaar di ñaawal jëflante bi muy jëflanteeg boroom këram wala soxnaam bokk na ci tamit al xiyaanatu zawjiyya ñoom ñaar kenn di ci war moroom bi war na baat bu yaatu la bokk na ci tamit liy waral kas bu bari bi ashuuru bil malal kàyyal dem ba dab ñaar ñi ci kenn ci ñoom ñaar bokk na si tamit bëri li nga xamante ne mooy jidaal ak xusaam maanaam dàgg sant bu bari ak xuloo bu bari bu yàggee rek tas mooy ñëw bokk na si liy tas sëy yi tamit li ñuy wax riira mooy fiir fiir nga xam ni moom mën nañ ko tudde mooy caabi fase bu ëppee ci sëy rek ba muy tuul tas moo fay dig moo fay ñëw beneen bi mooy seytaane ci boppam dafa am liggéey bu muy dox si diggante ñaari way dencante di tas ay sëy dinañ ci ñëw suñu kemtalaay kàrtan bu mujj bi mooy njabar bëri na tamit sëy yoo xam ne njabar moo koy tas suñu paree nag daal di jéem a indi benn xàll bu ndaw li ñu yaakaar ne buñ ko defee sëy yi dina toog kon ñu ñëw ci suñu premier point muy almuxaalaatu fil muhuur maanaam ëppal ci li nga xam ne moom mooy can yi mbokk jullit yi can moom mooy li nga xam ne mooy dagganal diggante góor ak jigéen xaalis bi nga xam ne dañ ko fay joxe pour mu daggal daganal seen diggante moo tax yàlla di wax naan wa aatu nisaa wa aatu nisaa sadaqaatihinna nihla jox leen jigéen ñi seenu can mu nekk neexal ñeel leen baatu can boobu dafa nekk mbir moo xam ne dañ ko daan joxe pour lan mu nekk loo xam ne dafay daganal mu nekk neexal diggante ku góor gi ak ku jigéen gi cadeau wala cadeau bo xamne daf ko kay jox mom lañuy tuddé mahru wala muy ñu koy wax as sadaq manam may lool nak islam bi ko tégué mu nekk digënté goor ak jigen tok ko won pour mu nekk jafé jafé waye daf ko tegoon rek pour mu nekk lo xamne cadeau bu ndaw lay doon wala bu simple wala bu yam bo xamne da fay tax ku goor ki xamne ki soxnaam la mu nekk premier cadeau bo xamne da fay jigen ci ku goor ki dem ci ku jigen ki mu nekk mbir boo xam ne mbir bu simple la waaye bu ñu xoolee suñu jamono tey jii dafa mel ni léegi dafa nekk gàllankoor pour góor ñi dem takk soxna kado boobu ñu daan joxe pour mu yombal sëy pour mu nekk luy daganal sëy bi suñu jamono dafa di day dox di dox di dox ba nga xam ne dafa nekk gàllankoor pour góor mën a am jabar tey kuy waaye takk soxna lan mooy nekk sa problème bi gën a rëy mooy fan laay jëlee xaalis bu ma yóbbu te pourtant xaalis boobu ñuy yóbbu nekkul woon loo xamante ni dafa war a gàllankoor sëy mooy première cadeau yi ñu ngay dégg may ko njëkk jéeg yooyu yëpp te loolu amul ci islam islam xamul yóbbu ay première cadeau xamul yóbbu ay may gu li mu xam mooy al mahru wala as sodaq loolu mooy cant loolu mooy bu ñuy takk sëy bi la ñuy joxe sa jàkka ja tey booy xool sax kuy takk soxna loolu ngay gën a ñàkkal fayda yow la ngay préparé mooy ñaata laa ko war a jox million yu bari ya comme ni ñu ko gisee suñu jamono jii te pourtant loolu du diine loolu mën na ñàkk ci sëy bi nekkul loo xam ne dañ ne bu ñu ko joxewul sëy bi du am maam asaf ñu bari si ñun yaay yi papa yi ba si góor ñuy takk sax xamuñu lan mooy seen warugar ci sëy am na ñu bari ñoo xam ne dañuy yaakaar ne tey xaalis boobu wala may gu njëkk soo ko yóbbuwul mënoon ñu laa may soxna te fekk loolu nekkul woon loo xam ne lu bokk ci sëy bi la xëy na aadamoo ko indi mais la nga xam ne moom la ñu la laaj ci sëy bi moom nga war a joxe mooy can can mooy dañuy joxe sa jàkk ja bu ñuy maye nga xam ne jigéen ji moo ko moom loolu mooy charte ci sëy bi pour sëy bi wér mënta ñàkk ci sëy bi waaye nekkul beneen alal boo xam ne dañ naan par force danga koy indi pour sëy bi mën a dagal bu fekkee dañ koy def tamit dañ koy def ci suñu bànneexu bakkan waaye defuñu ko mu nekk loo xam ne diine la te mbokk jullit yi bu ñu gisee sëy yi ni muy tasee ak millions yi ni mu baree dafay dëggal rek waxu sang bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni ki gën a barkeel sëy si jigéen ñi mooy ki sa gën a néew can can bi gën a néew cib sëy mooy sëy bi gën a barkeel kon bu ñu gisee tey millions yi bari tas gi bari dañuy xam ne kon barke moo fa amul te mbir bu amul barke du nekk loo xamante ni sëy ba dafay neex kon nekkate can boobu dafa nekkoon loo xam ne rek lu war la waaye nekk woon loo xam ni matériel lay doon boo xam ne dafay gàllankoor sëy bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk xam na ni li mu jane woon ay soxnaam ak can gam daan laaj ci ay doomam daawul paase comme ni nga xamante ni noonu lañ ko waxee ñeenti téeméeri dërëm wala mu teg tuuti rek ci booba temps moom daawul paase loolu moom li mu daan bëgg ak li mu daan soxla mooy fexel ba ki ngay may sa doom mu nekk koo xam ne boroom diine la fexel ba ki ngay may sa doom mu nekk koo xam ne boroom jikko bu rafet la waaye moom xamul woon wala waxul woon wala xëy na sax musul yaakaar ni jigéen dina dem ba nekk marchandise boo xam ne dañ koy jënd boo amul dëgg doo si jot kon loolu danger la bu rëy ci sëy yi te ñàkk barke boobu mën na sabab sëy yi nekk loo xamante ni dafay gaaw a tas moo tax sallallahu alayhi wa sallam daf ñu doon digal nañu إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض mu ne bu fekkee dikkal na leen wax ni da ngeen gërëm diineem parents yi la doon waxal mais nag xam ngeen ni bu njëkk parents sax moo daan utal doomam borom kër moo xam bu góor bi la moo xam bu jigéen bi wala bu nit ñëwee yeneen bi ni ngeen koy tànne mooy bu fekkee ki ñëw bëgg seen doom amna diine amna ci ko bu rafet mu ne da ngeen ko may waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni moom lu mu wax dëgg la ndax yàllaa koy wax loolu mu ne illa tafaaluhu su ngeen ko deful takun fitnatun euh, fil ardi wa fasadun arid dina nekk fitna ci kaw suuf ak yàqte goo xam ne bu yaatu lay doon mbokk yi xoolal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ay siècle moom la ñuy dund suñu jamono ji tey góor bu am diine am jikko bu rafet poche bi diisul kenn sawaru koo may sa doom muy man muy keneen muy keneen lan la ñuy xool lan lay liggéey lan lay liggéey loolu la ñuy njëkk a lijjanti ci lan ndax diineem baax na wala ndax ku am diine la wala ndax ku am jikko la te pourtant suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam lam ñu digaloon mooy ki nga xamante ne nii moom mooy euh, ku am diine ak jikko man tardawna diinahu wa xuluqa la yent bi waxoon bu leen dikkalee koo xam ni gërëm ngeen diineem gërëm jikkoom fasal fi juuxu na ngeen ko may kon fii déggoo sax mu wax fi waxu cant waxu xaalis dikkul kon mbokk yi lan moo ñu dal tey ba ñu bàyyi njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp ay aada ak cosaan ak suñu bànneexi bopp bay lambal suñuy doom wala bay teg suñuy doom yu góor stress ndax li may wax rek képp koo xam ne da nga laaj ci sa doom bu jigéen can bu bari sa doom bu góor bis buy takk dina am problème ndax tamaatu duñu rek tu dal ni ngay leble rek loolu lañ lay fay loolu du islam du diine kon bay bi ak yaay ji li nga xamni mo leen wara ëppal solo du may gu ñepp gi mais diine ji la wara doon ak jikko ji yow bu fekke da nga jaay sa doom ndax leg na leg jaay lay nuróol nga jaay ko prix bu cher legi sa doom dem la ka waroon def ko ku gor ki bu yagge xolam dina tang tang bo xamni parce que fay xalat ni ki alal gi bari jima def ci mom te bi mu ñewé satisfaire ma du ci wañ bi du ci biir neeg bi du ci jikko ju rafet ji du ci dara koku su yagge xol bi dina tang tang bo xamni du mëna tax xolati soxna ci bu fekkente ne nak ki nga may sa ku am diiné la ku am jikko ju rafet la bu soxna ci ñewé ak nu mu munti mel daf koy gérer ndax lan diineem mo koy teunk ci lool ba du ko toroxal jikkoom ju rafet mo koy teunk ci loola ba du ko toroxal kon nak te buñu amone amoon ak yeewute wala ñu mus deug deug dañuy xol borom jikko ju rafet may ko suñuy doom waye duñu xol borom alal may ko suñuy doom ngir alal ja mu am lool nak du dàqanteeg nit man na am alal te rafet jikko lool nit man na am alal te am diine lool waye nekkul lo xam mom lañuy jital wala mom la ñuy taamu ci sëy lañ cey taamu moy diine ak jikko mbokk jullit yi tey suñu jamono ji bo xolé dama naan ñu jigeen sax léeg-léeg damay wax ne dañoo desee yeewu ndax boo amee sa doom bu jigéen waaye ñëw jox ko ay millions moom ma ngay séentu seen waa kër ñi ngay séentu double million yooyu yow nga ñoo def ko seen kër ndax ku ne xam ne si ñu ne dëkk bi fi mu ne nii noonu lay doxe tey bu ñu indiloon sa doom 500000 muy sëy boo fa yeggamul 1 million dañ lay xeeb dañ lay xas sëy sën sax boo ma tur dinañ ko dégg li ñu def ci moom te pourtant indiwu fi dara kon bu ñu muusoon dañuy xam ne mbir mi jula la. te doom bu jigéen kenn du ko jula dañ koy mayee ci farata ak sunna mayee ko borom ngor ak borom diine li ñuy yebbi ci xew yi teraanga bi ñuy joxe lan moo ko waral la ñu joxoon sa doom boo ko joxewul tey far fas danga koy joxe ndax bor lay doom loolu yaakaar naa ñun jigéen ñi nga xam ne dañ koy jëflante ci suñu biir xam nañ ko jii ku ñu fi jox ay million nga sëy yebbi woo dinañ la xas booba nag yow bi nga xam ne yaa ko laajul bu laxasee yow yaa ko def ndax yow yaa nangu woon loolu moo tax ñun yaay war nañoo muus muus boo xam ni ku ñëw indi li nga xamante ni mooy can lu mu ndaw ndaw ndaw ñu jël ko te si suñuy doom bu boobaa dara duñu war buy dem këram boo amee sëriñ ca yóbbu soo amul nga xam ne amul dara du la ci war waaye boo laajee ay million soo ko fa joxewul di nga am perte am nga léeg-léeg nga am sa doom tamit seen beneen alal nga may ko ko mu dem ba ci biir xale bi ñëw yaay sama kii dafay naan sàngara daf may dóor daf may xas nga ne ko demal muñ rek parce que sa yaay day xam ne moo lekkoon alal ji wala moo ko nangu dañ lay jéem a forcer si sëy boobu mu nekk naqar boo xam ne doom jigéen yi ñu ngi koy dund ndax damay wax ni cat yi ñuy joxe wala may bu njëkk yi ñuy joxe li muy bari bari léeg-léeg doom yu jigéen yi duñ ca lekk dañ koy séddale ay lekku ndey ay gurey bàjjan ay li ma la mënta wax ñu kenn ku nekk bu xew ba jotee nga dajale yow tamit indi xale bu jigéen bi moom daanaka du ca lekk xëy na lam cay sol ngeen yebbante ko tasaare ko def ko ay piis képp ku ko tax piis piis yaa ngi ci armoire la bari bay bëgg dee mais ñi woo ko ñàkk a na ndax cat bu bari gi nga xamante ni moom la ñuy laaj su ko defee nag xale jigéen bi daanaka du lekk lu bari bu demee ba sëy bu neexul mu perte ñaari yoon alal si borom këram ñëw ci kër gi ñu tasaare ko mu dem fekk sëy bi neexul te damay wax ni képp kuy mayee sa doom war ngay xalaatal sa doom bu demee ni dafa war a fekk jëkkër ju koy yor ndax xam ngeen ni góor bu takkee jigéen lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne jigéen boo ko takkee ñeent yi moom yow la war yaa koy dëkkal di ko dundal di ko wodd bu feebaree yow yaa ko war a fekk yow boo yónnee li nga amoon yépp ñoo joxe ko am na si ñoo xam ne dañuy joxe li ñu am ba nga xam ni ndaw si dana sëy si ay weer ci bor la ñuy tëdd bor yu bare bari yoo xam dañ ngir lan xew ba ngir joxe may bu njëkk bi léegi nag sa jabar ñëwee nga war a nekk koo xam ne danga koy dalal dalal xelam jox ko li nga xamante ni mooy xàqam doo ko am foofu lu si ëpp xilaafaat yi fa lay commencé maanaam li nga xam ne mooy xuloo yu sew yi ndax waa ji moom indi na la ci kër gi mais mi ngi yor ay bor yoo xam ni su la xoolee rek léeg-léeg xelam lay dem ci bor yooyu te mënoon naa ñàkk kon nañuy def attention ci can yu cher yooyu mbokki jullit yi yàlla bi nga xamante ne nii ñëw na dafa wa yonent bi sallallahu alayhi wa dafa oyofal lool li nga xam ne moom mooy can ñun ñoo ko disal waaye daf ko oyofal benn jigéen dafa ñëwoon ci moom sallallahu alayhi wa sallam ne ko yonent bi de dama la bëgg a may sama bopp may naa sama bopp yàlla ak yonentam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah man de aw soxla si jigéen fi ñu toll nii benn saxaaba na man de bëgg naa ko yonent bi ne ko ku toll loo ko can ñu may la ko bi ñu laajee ndaw si mu ne d'accord na waaye ñu ne ko man de yoruma dara mu ne ko utal sax même jaaro baaraam bu ñuul nga jox ñu ko nga jox ko ndaw si mu nekk cam can il tamis walaw man min xadiidin can ko donte kon bu dee benn jaaro baaraam bu weñ bu ñuul la sax euh, mu nekk can kooku ne ko aw ma ko mu ne ko ndax mokkal nga dara ci alquran mu ne ko waaw mu ne ko taril mu am lu mu tari mu ne ko may nañ la ko ci li nga mokkal ci alquran ay ayna nahnu min hada ana ñun ci lii tey kan mooy nangu tey ñuy ñëw ñaan si sa doom nga laaj ko mu la mën na aw ma dërëb yoruma ñaari salaamaaleykum kan moo koy nangu mbokk yi sax ñoo lay njëkk wax ni kii bu si duggee torox te ku nekk xam na ni sëy ñaare bu fekkente ni nangu nga ba ñu takk la wala bu góor gi takk na jabar dafay yaatal li nga xam ne moom mooy wërsëg sëy dafay yaatal wërsëg ci ay àddina yoo xam ne yu bari la dañuy bañ a jël suñu temps ci kon dëggatee islam wala diine dafa ñëw yombal can ndax dafay bañ moom mooy jafeel ko ndax su jafee góor ñi du ñu mën a takk soxna te su yàggee kon mooy dafay bari jigéen ñi dañuy lamb dañ fiy bari te bari na ay góor yoo xamante ne nii bëgg nañoo takk soxna di ko dajaleel ay at imaginer yow ngay liggéey ay at di ko liggéey ngir la ngir takk soxna loolu nga liggéey ay at danga ko ci yemale benn yoon door a commencé waat nag à zéro te sa na saa boo ko takkee bu mu ñëw rek yow say eh, li nga daan fere dafay yokk bari na ay góor ñoo xam ne bëgg nañu takk soxna amuñu luñ ko takkee doonte kon loolu du lay dañuy mujj nekk ñoo xam ne dañuy njaalo ndax bëri na ñoo xam ne xaw am na fi yam déet waaye da ngay dégg ñenn si góor ñi ñu ne nga ëmbal nit kii sax ñu may la ko moo gën a yomb ndax boo ëmbee rek taaraay moom li ñuy xalaat ne nga ko may même bu amul dara allahu akbar même ko amul dara dañuy préféré may la ko parce que lan jaar ngeen ci yoon bu bon bi loolu li gënoon a yomb mooy ñu yombal sëy yi ba xale yu bëri mën a takk soxna yi kon njaalo dafay wàññeeku waaye can yu cher yi yombal na njaalo bi trop fu nga nii nga bëggante xale bu jigéen ñi bañ la ko may ngeen di gis ngeen di gisante ci ruq mu leer la ni kii la ñuy laaj ci moom amoo ko seytaane nag leen nga daal di koy tooñ comme ni ñu koy waxee ñu obligé may la ko imagine loolu kan moo siy am responsabilité. am nañ si responsabilité ndax ay yari yoon war nañ leen koo caw waaye parent yi téye seen doom yi bañ leen a maye am nañ ci responsabilité kon nañu yombal can yi te li ma waxoon ci commencement bi can bu chéré dafay nekk loo xam ne dafay sabab tas bu can yi chéré di nga takk jigéen can nga cher loolu na mu mel bu ko bu ko mu mel ko bu yàggee rek sëy dafay nekk loo xam ne lu tas lay doon ndax sëy li nga xam ne daf koy tas daf cee bokk mooy ngay xol sa soxna sa xol di tan wala nga jappé ko comme objet wala nga jappé ko comme marchandise bo xamné dang ko jënd su boba rek sey bi loy nek lo xamante ni lu tas lay do motax tax Umar ibnul Xattaab radiyallahu anhu benn sama tok mu ne bu len di seeral can yi oyofal len ko yombal len ko jëloon na sax dogal na nangam rek la can yi di yëm bu ngeen ko passé mooy ndax can yi bu ko fekkente ni cher na mu ne bu fekkente ni woon can bu cher dafa nekk baat bi ci sëy wala dafa nekk lu baax mu ne kon yonent bi moo leen ci gën a yella yell mu def ko sallallahu alayhi wa te kon dina ko def waaye yonent bi li mu daan cane ay soxnaam te pourtant bu ko bëggoon booba tax dina ko mën lu ëpp la mu daan joxe ak li mu daan laaj ci ay doomam moom mooy lan comme li ñu waxoon sànq musta canee doomam euh, soxnaam wala ay doomam mu laaj seen can lu ëpp isnatay achara loolu boo koy xayma instant instant yi dañ naan ñeenti téeméer la ñu teg rek loolu lañ daan cenee ay doomam moom loolu daan cenee ay soxnaam sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon sër yoo xam sëy yoo xam ne yu barke lay kon mbokk yi nañuy wàññi can yi gis nga yokku can yi ñu def nii arrangé jigéen ñi sabab la si jigéen ñi lamb parce que comme que amul ay millions doo si dugg te dëkk bi jafe na jafe boo xamante ni millions yomb loolu dafay nekk loo xam ne dafay ndax euh, jigéen ñi nekk ñoo xam ne ñu lamb lañ te ku nekk xam na ne fi toll nii jëkkër yombatu ndax góor ñi xam nañ ni bari nañu jigéen ñi duubul nañ duubul wala triple nañ sax ji euh, góor ñi xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na mu jig jamono samay jigéen ñi ñooy ëpp góor te xam ngeen ni góor ñi li nga xamante ni noonu la yàlla bindee ci kaw suuf ñoo daan dem ci xeex yi ñu leen di rey góor ñi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy dañuy mag jigéen ñi bu ñu leen di takk su ko defee ñoom ñoom daan ñaare booy xool ñooy gën a ñooy njëkk a faatu jigéen bi li may wax toujours rek kër goo dem ñaare bu fekkente ni dem nañ sanc nga benn koñ am fa ay at yu bari ay ñaar fukki at ay fanweeri at ñaare kër goo dugg boo nee bi dañ naan la jiitu jënd soxna yi ñoom ñoo fay des léegi nag loolu bu fekkente ni am na soxna yu bari loolu amuñu jëkkër ñu jee ñu seeralaat can yi dafay tax ñu gën a lamb kon can yi nu mu gën a wàññi ko moom mooy li nga xam ne moom moo gën mo gën ci yow yaay ji doo amal kenn ak kenn du la amel ak nga maye sa doom ci lu yóbbu mu dem sëyi dara du la war foofu loolu la neex su ko defee yow doo si am benn xarma ma yàlla ak kenn kon can yi na nekk loo xamante ni dañ koy wàññi bari na ay xale yu góor yoo xam ne dañuy toog di mballu ñu baal ñu si kàddu dañuy foo foowee seen bopp ndax lan bëgg nañu soxna te mënuñu koo am mbokk yi nañu xoolaat li nga xamanteni ni moom mooy can yi ñu wàññi ko yombalal xale yu góor yi ñu takk soxna yi su ko defee li nga xamante ni mooy ñaawteef yi mun a nekk loo xamante ni dafay wàññeeku lool ci suñu dëkk bii suñu defee loolu rek sëy yi dina nekk loo xamante ni lu yomb lay doon mbokk jullit yi yombalu can day nekk na loo xam ni dafay indi nit ki nekk loo xamante ni dafay ragal yàlla ndax bu la leeree ni yow boo amee 1000 francs sax am soxna kooku du mooy day dem takki soxna moo koy gënal mu dem mooy yàlla subhanahu wa taala kon islam lu mu indi rek daf koy indi ak xikma ak xereñ boo xamante ne nii moom mooy tax mu indi ko te xam ngeen ni millions yi nga xam ne danga koy jël tey nga jël lu mat ñaari millions ñetti ñeent wala ay 500000 wala ay 800000 dem def ko si benn jigéen wallahi bàyyi nga koo xam ne su añee du reer bàyyi nga koo xam ne su reeree du ndékki moo xam sa sa mbokk bu la jege la moo xam sa dëkkandoo la loolu nga wàññi woon ko de bu fekkee da ko am nga def ko ca moom mooy ëpp tiyaabu fuuf loolu nga nga dimbalee woon ko keneen donte kon mën ngaa dem joxe can te tolloog la la nga xamante ne nii moom moom moom la sa doole àttan waaye teewul yàq moom islaam daf koy bañ te gis nga can yu bari yii li mu waral li muy indi mooy xew yi nga xam ne yàlla daf ko xaraam bu can nga rek. ñu ne mënuñoo ñàkk def xew ah donc mënut a ñàkk indi ay millions ba pare kenn du def xew nga def xew boo xam ne góor ñaak jigéen ñi dañuy tasaar dañuy dajaloo jaxasoo li gën a métti nag mooy suñu xale yu jigéen ñi lu ñu dund dund suñu ndeysaan bu xew ba tetee rek ñu dem pose xef xam nga ne dafa xaram daa dem maquillage bi te bu bi koy defal sa borom kër toog ci biir kër soo ko defee génn dafa xaram soo génnul nit ñi dinañ ñëw gis la dafa xaram te loolu li koy waral mooy can yu bari yi nga xam ne dañ koy joxe puukare bi day am par force yàq bi daal di bari te xam ngeen ne innal mubadirina kaanu ixwaana yàlla mu ne yàqkat yi pasar pasareekat yi ñoom mbokku seytaane yàlla nañ ci yàlla musal kon mbokk yi maa ngi yuuxu ba fu sama baat yem di wax ne maa ngi ñaan ñu wàññi can yi suñ ko wàññee day jigéen yi dinañ sëy seeni borom kër seen xol sedd seeni yaay seen xol sedd tey bu ñu mayee sa doom may bu njëkk di nga kontaan mais la ngay xalaat mooy yebbi ba waaye kon buñ ko wàññi woon dafay nekk loo xam ne dafay yombal ci yaay ji yombal doom ji yombal borom kër gi loolu nekk na bind boo yaatu la waaye dañ ciy ci beneen tomb ndax njëkkanteeg waxtu bi ñu ngi siy jéggi yi bari bokk na si li nga xam ne dafay gaaw a tas sëy ci suñ jamono ji ñu toll mooy ngay takki soxna xooloo ki nga xamante ne nii koo mën a àndal la xam nga olof Njaay dafay wax ni new na ànd ak moroomi newam lenn ku nekk da nga war a am ñoo war a ànd waaye tey bu fekkente ni dangaa takk soxna soo xam ni bokk leen pas-pas bokk leen jubluwaay bokk leen xalaat bokk leen jëfin loolu bu yàggee boo amul chance lool sëy ba tas lay mujjee moo tax booy takk soxna dangay xool ki nga mën a àndal bu fekke mëno ko indi ci li nga nek surtout yow ko gor ki da ngay xol ki ngay andal mais ku jëw ki tamit war na xol ki may andal war na tan ki nga xamanteni mom lay andal bu bu ko ci alal ji rek yittel waye bu tan ko xamni ne ku mëna andal mom la mu andal mom mom moom tax sey bi nek lo xamni ne lu deugar lay doon waye da fay nek lo ne lu yàgg lu yaatu lay doon ndax islam daf ñoo digal muy gor muy jigéen bala kenn di dugg ci sey da ngay tan ki ngay andal ndax ni koy waxe sey bir la bo xamanteni ni ci cee am ay njabot danga ci fas yalla kon bokay def war ngaa tan ki nga xamanteni mom ngay àndal su fekke jigéen dañ la tan lo comme niñ ko waxe won ci hadith hadith bi sa ku am diine ak am jikko yent bi ne bu ngeen ko defé day baxna nga tan ku am diine ku am jikko nga ànd ak moom waaye xale bu gol bi neex na ma ciofena ah ki kay mom bu ko gisee nu mu góor a yiwee waaye jikko ji dara baaxu ca nga tànn ko sëy ba boo moytuwul lu yàgg du neex kon da ngay tànn ki nga mën a àndal góor tamit ñu tànn loolu jigéen ju baax bari na si góor ñi ñoo xam ni seen bànneexu bakkan lañuy tànnee soxna te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne soxna ñeenti mbir rek mooy tax nga tànn soxna jigéen ji li ñuy bari bari boo leen xoolee ñeenti mbir mooy nekk si ñoom tunkaxul mar'atu li arba'in li maaliha léeg-léeg nga tànn soxna ngir alal ja kii de bari alal comme niñ koy waxé légui duma takku cas social bëri na suñu càmmiñ yi légui loolu ñuy waxtaan té moom lañu gëm seen xol da ngay dégg ñu ne man duma takku cas social ku ndol lu ma koy doyé te xam ngeen ni sey bañ ngay def yow bu góor ki dangaa waroon a takk ku jigéen pour jappalé ko mën ko dëkkal mën ko dëkkoo mën ko sàmm ci biir kër gi waye nekkul da ngay takk jigen rek mu pour mu ñow mom dina financer waye gis ngeen léegi noonu la ñuy tànnee wala ñu bari bo borom alal la ñuy motax yeen tax yéen it waxoon na ko dañuy tànn soxna ngir lan ñent limaaliha wala li jamaaliha nga tànn soxna xooloo jikko xooloo dara taar bi rek nga gis te tey booy xool suñu doom yu jigéen ñi si bëri seenu taar dañ koy àpp bëreetul mi naturel dangay laal tuuti xeesal def say xef yokk say we yokk sa karaw ba mel ni jinne macha allah ku la gis na lay bëgg ndax dangay xam nga seytaane mooy taaral loolu mooy melal loolu ba nga xam ne day mel lu rafet ndax nena na newoon na yalla ba ko yàlla tëb ko ne ko dina la dugal safar def ne ko dina dugal man tamit sa jami ni mo ma dina len leen dugalaale safara mu ne dinaa leen dikkee ndeyjoor moom seytaan la dina len dikke càmmoñ dina len dikke kanam dina len dikke ginaaw waaye sax dina len xir fa la khalq allah mu ne ko gis nga sa xel bi dina len xir ba ñuy soppi bind bi nga len bind yow yalla tay ñaata jigéen ñoy soppi seen bind ku ci yokul sa karaw bu muy daanu sa dikk pour yow nekkoo jigéen te xam ngeen ni loolu bokk na ci li gën a danger jigéen di ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laana allahu alwasilata yàlla rëbb na kiy yokku karawam ak a kay yokkal te rëbbum yàlla mooy lan mooy yàlla mere na la waaw ci deewee nag nga def loo xam ne yàlla daf la ciy mere nga dee ci wala ayaas billah bari na ñoo xam ne dañ leen di tëral ci morgue ba seeni greffage lañuy deewaale muy lu daw yaram muy lu daw yaram mu leer la ni ki dafa dé ak merum yalla ak rëbbum yalla ndax dé mom bir la bo xam buy ñew du tag man nga sol sa bu génn bala ngay ñew ñu simbi sa mbubb dañ la koy simbi dé dab la ci yoon bir na ko tok di wax bala mu yegg la dé ñew ndax mom yëpp di baxtatam day ñew ci mberteel shaytan da lay xir nga yel say xef yok ko xef yi melni luy bëgg lokk sa bët yi jigéen ñi kenn amatul xef ndax so koy téggi day and ak xef yooyu yalla mayon dañaale mu nekk loo xam ne da nga see jublu woon taar far mu nekk euh, ñaaw nga mu see am loo xam ne lu ñaaw la xeesal boobu ku ko defal pour yow bokkoo si àdduna wala bokkoo si jamono te li may wax rek képp koy xeesal bu ñu tëral la ci biir morgo bi 24 heures boo ko fa amee yaay raw këriñ te boo moytuwul ñuulaay boobu ngay dekkee sa kanamu borom yow ma fi am lu ko fi jar lan moo fi jar loolu bàmmeel nu mu xate nu mu xóote nu mu tànge àdduna bii nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ngi mel ni nga doon tukki jaar ci taatu garab toog di noppal ma a foofu war nga faa def lu ban wala lu ñaaw ñun ñëpp am na kër gu ñuy xaar muy këru la ñuy am na foo xam ne dund goo xam ne moo ñuy xaar benn muy àjjana wala safara àjjana boo fa duggee dootoo am naqar ci kaw suuf doo xiif doo mar doo rafle doo feebar doo dee baqata sax duggee ni ñan dara dootoo ko def lu rek nek ci noflay ak bànneex ndax duñu liggéeyal kër gogu mo gën fuf ñi def li nga xamanteni mom lañuy def yalla dañuy mere kon jigéen ñi dañuy àbb taar nga gis taar boobu bu sé tak jigéen su ñëwé ba am benn doom ñaar xaw a bàyyee liku sëy ba boo matul fay tas kon taar gorew ni ñu koy waxee so magaté mu feñ mer sax lék lék boko défé nga gis euh, taar ba dañ kon buñuy tak buñu jël taar bi kese ñu viser ko mu ne wala li xasabiha léeg-léeg nga takk jigéen ndax yax bu rëy ba mu bokk benn waaye doon na wax ne yax bu rëy moom ku koy jaay boobu dangaa yëgagul armeel rek lu mu rëy rëy ci armeel la lañ lay suuf te boo fa tëddee ñoom ñëpp ñu ne nemm doo xam ne borom yax bu rëy ak borom yax bi sew ñëpp a yem ñëpp tëdd nga te yax wala bu am yax wala askan ni askanam wala lay juroom ñaari per perkaal gas ba nga xóot suuf nekk sa lal nekk sa njeganaay nekk sa mbalaan mënoo ci dara mënoo koo foore ba nga dee mënoo bokk ci yax boo munti bokk sant boo munti sant ba boo di dina def noonu noonu rek lañ lay ngay mujjee kon yonent bi nga ne léeg-léeg nga tànn jigéen ngir askanam mu ne waaye nag wali diini ha mu ne dinañ tànn jigéen ngir diine gis nga jigéen boo ko tànnee ngir diine bu fekkee dafa ñaaw ñaaway boobu dootul feeñ ndax jaamu yàlla dafay rafetal nit dafay taara doomu aadama surtout jigéen su fekkente ne dafa amul yax bu rëy jaamu yàlla gi muy nekkee sa kër nam lay toppatoo na muy sëyee sëy bu rafet day tax yow doo xalaat sax ni kii moom ban askan la bokkati même bu doon jaam la sax taaba jaam di am gis nga bu fekkente ne dafa am amul alal dafa ñàkk na muy sëyee ak yow sëy bu rafet day tax yow doo xalaat sax alal danga naan lii moom a gënal alal bëri na ñoo xam ne tey dañ naan suñu soxna yi li ñuy ñàkk-ñàkk ñoo ñu gënal alal ak li ci biiram ndax nañuy toppatoo seen i borom kër moo tax sallallahu alayhi wa sallam mu ne booy takk soxna fadlu far bi daati diini taribat jadaaka tànnal borom diine boo ko defal fétti ka sa loxo ci raay képp ku si takk soxna te amul diine di nga tëdd bëgg di jooy jàpp soo waxee dina la tontu du toog sa kër léeg-léeg sax mu ne la man parité laa gëm cinquante cinquante bul wax mu ne la maa wax bandar ndar maa wax ba xotteeku bul dem dinaa dem parce que waral lu mu rafet rafet bu amul diine zéro la lu mu rafet rafet bu amul diine tus la lu mu alal bu amul diine mënoo ko yilif alal ji moo koy jiital lu mu ci askan bu rëy bu amul diine du dara waaye gis nga bu amee diine moom mën naa boole mu ay kon fasfar bi zati dini taribat yadaka boy tan sunu tànnal sunu kon ndekete sey bokku na ci likoy koy muy baña gawa tas moy nga tan ko xamanteni ni ko mu la nekkal la muy ku gor bi muy ku jigen bi leg leg nak mbokk yi nga tan soxna wala nga tan borom keur nga yaakaar ci mum ak mbax mu ñoo safaan waye bu boba bu ñewé lima lay dénk moy dekkel di ñaan sa borom subhanahu wa taala xam ngeen ne yàlla buur la boo xam ni bu baax la buur la boo xam ne buy nangu ñaan la ku bëri kersa la nee na man yàlla ku bëri kersa la te rus sama jaam ma ay loxo ma delloo ko zero kon boo amee soxna wala nga am borom kër boo xam ne melul la nga bëgg kon del ñaan yàlla yàlla boo ko ñaanee benn dina la ko may fi ci àdduna bu gënee ci yow bu gënul dina la ko dencal ba yow ma ben benn soxna dafay nettali mu ne dafa bëggoon bi muy toll ci am jëkkër dafa doon ñaan yàlla yàlla may ko jëkkër ju baax jëkkër joo xam ne moo koy yee pour mu jug julli jëkkër joo xam ne woorkat lay doon jëkkër ju mën a yar njabootam mu ne benn waay ñëw labat ko mu gis ci moom ni kii kat ku baax la bu ñëwee ñu jël si jaada julli parents yi ko gis ñu ne ah kii kat ku baax la nekk daf koo mbubboo woon rek waaye melul noonu mu ne bi ma ci duggee ñu doxal ñaari leer su julli jotee fajar maa koy yee pour ma yee ko mu jóg julli dafay bari imagine góor ni mu war a nekk koo xam ne xawaama la ci biir kër gi rijaalu xawaamuuna ala nisaa war a jiite soxnaam war koo yee dem ba soxna si di la yee jógal julli nga bañ mu ne bu xëyee liggéey ba wàcc bay dem si ay moroomam dox yi balaa muy ñëw fekk ma nelaw yàlla may ñu doom mu ne sama doom day feebar ñaari fan bu ko teg sax bët buy tukki pour liggéey daf daan def dem ay mission mu ne su demee dina am ay ñaari weer du ma xam sax fu mu dem fa muy liggéeyoo lay jaara dem jox ma benn message bu ndaw tey dama mission bu demee def lu ko neex ñibbisiwaat ndaw si mu ne waaye ma dëkkal sama sama sama samay loxo di julli ma jullee dama koy ñaanal yàlla yàlla nga jubal sama borom kër yi ndekk te jigéen sa borom kër dëngee doo xuloog ci force dangay waxtaan ak moom ndànk-ndànk waaye di koy yedd bu suuf seddee waaye di ko ñaanal borom bi subhanahu wa na benn bis mu dem tukki bi mu tukkee ma toog ñaari fan mu woo ma téléphone ne ma maa ngi ñëw ko jooy yu metti nee ma ne waa lan moo xew koo xam ne dafa daan am ñaari weer du ko dégg wala weer nee na bi mu ñëwee mu ubbil ko bunt bi mu song ma jooy jooy yu metti ma ne ko sëñ bi lu xew mu ne ko man de bi may tukki dama ànd ak sama benn xarit bi ñu demee ba fi ñu war a dem fi ñu war a def mission ñu dalal ñu dalal ñu si benn hôtel mu ne bi ñu demee ci hôtel bi maag moom ñu daal di dem ci hôtel bi ñu wàcc ci suuf naan sàngara carte tox xool jigéen ñi ñu neex ñu àndal moom ba tëdd jot ñu tëdd mu ne ma huit heures pile nag ma yee su ma la soo ma njëkkee yeewu su ma la njëkkee yeewu dinaa la yee nee na bi ñu ba guddi ba fay ba bët ma toog huit heures yeewul ma ne naa sangu nee na ma sangu sol sama yëre ma woo ko téléphone ba sonn wuyu ma fëgg néegam wuyuwul mu ne ma dem woowi gardien hôtel bi ne ko ah sama waa ji kat mu am koy fëgg wuyuwul nee na bi ñu dàjjee bunt bi fekk dee na bu yàgg ci guddi gi nee na ma xalaat ne dee gii tey mënoon naa doon si loolu la tuubee ànd ak jabaram dem ziyaare ah, ñaan yàlla tuub ay bàkkaaram dellu siwaat la def lu bon te loolu lépp mooy xool li ko sabab mooy ñaan gi nga xam ni soxnaam mi ngi ko doon ñaanal ndax xam ngeen ni ñun jullit li ñu gëm mooy ne bu ñu amee problème wala soxla kenn rek lañ koy diis muy allah te bu ko ñaan mu may la kon soo amee sa borom kër nga yaakaar ci moom ak njub même bu dee sa soxna te melul noonu bul tayel mukk di ko ñaanal borom bi subhanahu wa taala beneen point bi mbokk yi ngeen baaju si tënk bi ndax dañuy njëkkanteeg heure bi beneen point bi mooy suu muamalatil suul muamala من طرف احد الزوجين بوكنا تي لي ورال تسيب لي سي جامونا جي موي كين سي نياري وي دنتنتي دي جفلانت جفلانت بو خامني رافتو سي رافتال با اك نو مونتي خيو رافتال با موي كو غور كي موي كو جيجين سيرتو نك ليغا خامتيني موم موي كو غور كي غور بو لا مايي جيجين جيجين دافا نيو دولي جيجين امول خيل امول دولي ينتبي صلى الله عليه وسلم مونا ناقصات عقل ودين مونا جيجين خيلم ماتول diineem matul ku nekk xam na ne jigéen dina am ay fan yoo xam ne du ko julli du ko woor te loolu du dal jigéen kon loolu manqué diine la waaye manqué xel la loolu la ñu yeneen yàlla bindee kooku nag boo nekkee moom mbokk yi il faut nga tane ko góor bu tanewul jigéen tas ba day yomb bu fekkee tas tan tane woo ko ci xalaat tane woo ko ci mën a muñ tane woo ko ci mën koo comprendre ndax jigéen man damay wax ni ñëpp a yem lu mu baax baax baax day bëri ay caprice mer lu jàpp te mer léeg nga changé kanam parce que moom bu xolam neexul rek jëkkër ji ñaare la koy sippi parce que kooku rek lay xalaat bi moom bu ko sippee xëy na xolam dina féex ndax gàtt xelam ñu baal ñu ci kàddu kon yow bi nga xam ne yow yaay borom kër bi yow yaa war di jëflanteeg moom jëflante boo xam ne bu rafet lay doon roy suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam pourtant ay soxnaam dañ ko daan kompaloo dañ ko daan meree moom miy gën ba nga xam ne jigéen nag sikk na nag nañ waxante dëgg nag xaw nañoo am ak cikk tuuti yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lewet ci dal ga ci mbaax ci nim daan dafa ay soxnaam teewul dañ ko doon mere léeg di ko complot parce que naan lem ci benn néegu soxna ñu daal di complot ne daal ñëw ku mu jub rek sa bakkan te xam ngeen ne yonent bi dafa bëggoon bu neex sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye yéen lu xew ñu ne ko yii xet gi ngay xeej neexul sa gémmiñ gi daal moom tey dafa xasaw mu dem si keneen mu wax ko mu dem ci keneen mu wax ko mu ne xaraamal naa lem ci sama bopp yàlla na ko yaa ayyuhan nabiyyu laa tuharrima maa ahalla Allaahu lak tabtaghii mardaata azwaajik lan moo tax ngay xaraamal li yàlla daganal ci yow ngir sàkkoo bégal say soxna kon góor léeg-léeg dafay sàkkoo bégal ay soxna ci seeni caprice di leen muñal ci seeni néew doole ci seeni ñàkk xam ci seen xëtër xët-xët xët-xët gi nga xam ne léeg-léeg jigéen daf koy àndal ku barke lo lepp lépp daf ko war a boole di ko muñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli ci gën ci yéen mooy ci gën ci njabootam te man maa gën ci sama njaboot sallallahu alayhi wa sallam soo ko fekkaan biir këram bu ñuy mooñ ma nga ca mooñ ga bu ñuy boyal ma nga ca boyal ba bu ñuy togg ma nga ca togg ga bu paree toog di waxtaan ak ñoom tey ban góor moo lay boyalal

daf ko war a soutenir gis nga loolu su amoon jigéen lu mu bon bon bon lu mu yées yées gis góor gu am yërmaande comme yonent bi sallallahu alayhi wa ko mën a comprendre benn lam du yëngu tekk bu yàggee dafay mel ni euh, xat nooy nepp ci kanam soxna borom këram waaye kët am na ñoo xam ne doo togg bañ ne la neex ne doo sañse bañ ne la rafet la doo def dara loo xam ne soxna leen bëri na si góor ñoo xam ne téere ba rek alquran ji rek wala soleil ba rek wala hadis yaag saxiixu buxaari yaag muslim yi ya. fàtte ni ki nga nekkal ci kër gi dafay am lu muy soxla muy waxtaan ak yow man day wax dëkk bëri na jigéen yoo xam ne loolu dañ koy jàngal sama borom kër du waxtaan ak man su ma bëggee waxtaan ak moom hee dama am lu may liggéey kaay bu kay ku ne xam na ni ca bitt la mais biir kër gi dafa am lu la fi war mooy lan nga dalloo sa soxna wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan ngir lan li taskunu ilayha yàlla mu ne bokk na ci samay kéemtaan ma sàkkal leen ay soxna pour ngeen dallu ci soxna yooyu kon soo wàccee dangaa war a dallu ci soxna si danga ko war a wéttali koo xam ne yaa ngi jële si kër ndeyam ak baayam indi ko sa kër doo ko wéttali doo waxtaan ak moom doo ko bànneexal doo ko bégal xoolal Aïcha radiyallahu anha mu ne mune ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma daan neexal di wowe aishu di xol tu bu ma a neex mu di ko def mu dima ko wowe mune ne yonente bi dafa tok ben bis ne ko Aïcha ma mere dama koy xam mune ko noo koy xam mune ko soo mere soy waat danga naan Ibrahim ma ngi waat ci borom Ibrahim bo ko nag nak naan nan warab Muhammad xol yonente bi mu comprendre won jigéen tay bo mere sa jëkkër dana la dangaa mer danga xam ne yow mala la mer man ngay fonto dama di sa morom man dama laa faale dama laa indi fii pour nga tarbiya mu liggéeyal ma loolu nag moo waral wala bokk na ci li waral sëy bi gaaw a tas kon suñu càmmiñ yi suñu papa yi suñu doom yu góor yi ñu ngi leen di ñaan ñu yërëm jigéen ñi yonent bi lu mu mujjee wax ci dundam xutba bi mu mujjee def dana stawsu bi nisaai xayra fa innama hunna awaanun indakum maa ngi leen di dénk ngeen def ci soxna yi lu jeeg lu yiw def leen ñekk ci soxna yi ñom ay ndénkaane lañ ñeel leen xol leen doom bu jigéen nu mu neexee baay bi nak ko nangu koo muur jébbal la benn paa dafay wax ne ndeysaan mu ne bu mu amee doomam bu jigéen di ko muur muy sëy mu ne torom la fonk soxna ndax li mu yëg ci xolom ci tàqali ko doomam bu jigéen mu ne tey soxna si tey baal ma àq lépp lu ma la doon def bu fekkee li ma yëg tey loolu la sa papa yëgoon keroog bi lay muur di la indi sama kër nag ma baal àq ndax takaliko bu doom bu jigen ak bayam dafa met yonente bi sallallahu alayhi wasallam mune ma ngi len di dénk si jigéen ñi ngeen def ci ñoom ñek mune ndax ñoom ay denkana len ñel len mune jigen dañ ko faar dañ ko bind ci faar te mune faar ba ca kaw sax moo gëna a faar dafa dëng soo ko dam damm ko soko baye mu gëna a noy def muñ kon muñ rek ngay def kon gor gu sik wala gor gu dëng wala gor gu dul neexal soxnaam wala góor goo xam ne comprendre lul jigéen dafay waral sëy bu gaaw a tas yonent bi salaa sallam daf daan dàqanteeg Aïcha radiallahu anha Aïcha nee na mu mu rawanteeg man nee na ma raw ko ndax boobu maa ngi door a si ma nekk oyof xam nga jigéen bu sëyee ñaare bu amee ay at rek dafay yaram may dàqanteeg yonent bi salallahu alayhi wa sallam yonent ma dama haadihi bi tilka bii mooy door ya ma ko jëkkoon def tay ma ko def mbok yi gis ngeen jigeen góor bi rawanteeg soxnam ci jamono jii ah man de wax dëgg yàlla gisuma ko góor boo xam dafa am jot rek tay nañ dem rawante ci dakante fii dem ci plage yi def li pourtant loolu araam la mais sunna bi mom wax deug yalla danaka yoyu bokku ci sunna bi dal moy ah sa jëkkër boobu bu la wowe ci kolal bi nga bañ ah, ah, xatu aljana haram la kol gi na jot waaw ah, góor lu jëm na ci soxna ci jugal julli way ja yoyu rek wala ceeb bu safee xorom tey nga dee waaye neexal di tiitaral di di tiitaral tiitaral xaw ni ñu koy waxee sax di jay sa soxna di ko jay di ko wax wax bu neex loolu jafe la kon ñaar ñi nga xam ne ñooy waye dencante yi surtout soxna euh, borom kër bi su fekkente ni nag sippi na rek ah sëy day tas. jigéen bu génn sa biir kër borom kër si li dul ndigalam tànk boo seqi malaaka yi ñu ngi lay rëbb ba keroog ngay delluwaat sa kër. jigen warul genn bir kër jëkkëram lulul dul digal ndigalu borom këram même bu la sa yaay woowoon même bu la sa papa woowoon waro genn ci lulul digal waye bari ci ñun ño xamne dañ naan xala ba daw te ñëw balaa muy ñew yene a ngi dégg ki ñu netali mu dem ba Louga tagu borom kërëm geejja way fa def accident gañ ci yoon ba woyé borom kërëm ne ko du sama soxna sama soxna mun ta dem Louga te man yëgu ko way gi la ma taal xolal bobu gàcce ak lan lay wax borom bi subhanahu wa taala jigéen dafa war a gàtt tànk jigéen dafa war a gàtt làmmiñ jigéen dafa war a neex kàddu li may wax toujours al kalimatu tayyiba sadaqa wax bu neex sarax la bëri jigéen yoo xam ne lay tas seeni sëy seen làmmiñ lay jóg léeg-léeg nga wax benn kàddu boo xam ne sa borom kër li des ci dundam dootu ko fàtte wax boobu mën naa dem di dem di dem ba indi sëy bu tas da ngeen gis nga jeer li muy rëy rëy léeg benn kàddu moo koy taal kon nañu nekk jigéen ñoo xam ni dañuy teral boroom kër yi fonk leen su ko defee nag ki nga xamante ni moom nga nekkal sëy bi dafay nekk loo xam ne lu yàgg lay doon. beneen point bokk na ci liy tas sëy yi mooy warante ci diggante ñaar ñiy sëy war mooy comme ni ñu koy waxee léegi jigéen boo xam ne day am borom kër am far di war borom kër wala borom kër boo xam ne sincère am nga góor am na takk ñeenti soxna. waaye ki nga xamante ni naroo koo takk góor mayuñu la ngay nekkal moom loolu islam bëgg ko wala daganalu ko si góor li mu daganal mooy nga takk ay soxna waaye daganalul ngay nekkaale ak soxna te góor ak jigéen seen relation wala seen sëy bu si amee kenn koo xam ne war sa morom rek sëy bi dafay gaaw tas léeg-léeg nag waral mooy jigéen boo xam bañ koy mayee bëggul woon moo islam di bañ mariage forcé jigéen kenn du ko forcé danga koy bàyyi bu mu bëgg wala sa borom kër xëy na am kàttan ci lal bi rek muy lu mu lay jox doyul la seytaane war la ba ngay génn di ko def daf koy a léegi-léegi wala jëkkër ji nekk koo xam ne la muy dem dafa bari moo tax soxna jëkkëram daf ko war a jege gis nga sa borom kër bu lay jege léeg-léeg yenn yi du nekk sax sa xel ndax seytaane dafa bari doole te dafay nekk ci xel te mooy li muy dawee ci nit ki comme ni béréb di dawee ci yaram noonu lay dawee ci nit ki moo tax jëkkër dafa war di jege ki nga xamante ne mooy jabaram léeg-léeg tamit li kay waral sax jëkkër ji ñàkk yitte woo soxnaam faale woo sa soxna boo ñëwee doo ko xool mu génn ci biti xam ngeen Sénégal nu tëdd tëddee laa mi soobeeg maslaa bi mu gis góor bu koy wax wax bu neex mën na dem ba tàbbi ci loolu yàlla ci yàlla mos wala mu nekk koo xamante ne nii dafa amul jikkoy islaam gis nga jigéen bu feguwul amoo jikkoy diine yi la sa borom sant ñaare war sa war sa borom kër daf lay yokk génn na nga nu mu la nu mu say ween di feeñ sa yaram di feeñ sa lépp di feeñ nga ni kaay leen xool ko ku la pis ci mbedd mi ba am ci yow yoon dafay yomb moo tax yàlla na jigéen suy génn na muur aw yaramam ba nga xam ne dara du feeñ zalika adna an yu'rafna fala yu'dayna wa kaana allahu gafuran rahima loolu moo gën a yell pour ñu xàmmee leen ko islam moom li mu xam ñaari façon jigéen moo am bi nekk jullit ak bi nekkul jullit bi nekk jullit suy génn dara du feeñ lu dul ñaari loxoom ak xar kanamam yàlla da loolu la digle yonent bi sallallahu alayhi digle ko loolu la ñu xam ci jigéen moo tax léeg-léeg nga gis jigéen boo xam ne dafay solu yow da ngay hésité ndax kii jullit la wala du jullit te yàlla nee na jigéenu jullit li ko war a xàmmee mooy colam zalika adna ay yu'raf na gi ñu sant moo gën a yell pour ñu xàmmee leen ko bu ngeen ko defee fa laay usee na kenn du leen lor def nga ni jigéen boo xamante dafa muur kanamam muur boobu nga xam ne ay loxoom mooy feeñ dina nekk miis dina génn di taxawaalu ci paju mi bañ koy violé wala ñu koy siif du ngeen ko mës a dégg du ngeen ko mës a dégg jigéen jii muur yaramam bu mu daj di ngeen ko gis ci ay buntu baar du ngeen ko mës a gis di ngeen ko ci ay sabar ak tànn biir ngeen ci gis jigéen ñi ngeen ci gis ñuy futteeku mooy ñuy xeesal ñu baal ñu ñuy teg greffage ñuy yokk seeni we ñoom ngay gis ñuy nekk ay miis ñoom ngay gis ci sabar yi ñoom ngay gis ci layala yi ñom ngay gis ci ndey dikki yi su ko defé nak lor da fay gaaw am ci ñoom yalla nak mu pour ñu bañ la lor demal nga muuru ci so muuroo so génnee kenn du la lor fa laa yu usayna te yàlla mu wax garantie so ko defé kenn du la lor ba pare nak wa allah allahu gafuran rahiman sooy muur say cër li nga di la ba yalla santane di gem ñaar yalla dafa bëri lu lay yeeram daf lay jéggal say bakkar sa bo jéggalo yalla jéggal te day am ci yow yërmaan yakana ñi muuru ñu bari xam nañ loolu yenn torof torof yi dina metti lool mais dangay xam ne lii yërmande yàlla dafay ànd ak yow ndax lan au moins yaa ngi def santaane yàlla ndax yàlla bu la santee nga def daf lay garanté la lor te dinaa la dinaa la jéggal say bàkkaar waaye bu yàlla santee nga ne ko def ma wax dëgg yàlla dafa tàng nag moom muuraay moom mënu ma dafa tàng wax dëgg yàlla greffage moom mënu ko ñàkk teg dafa xew si jamono yàlla na la ah kon nag demal bàyyi naa la ak sa bopp te damay wax ni jigéen wallahi bu ñu xamoon li ñuy xaar ci biir bàmmeel dinañ muur balaa ñu ñuy muur par force soo ko deful dinañ la ko defal dinañ la muur sër bu ndaw woddee la ko solo lu mel ni garaamu bi la benn mbalaan muur la muuraay boo dañuy ñaw ci kanam ku dee dinga ci jaar dañuy ñaw ci kanam solol la ko mu nekk genre jilbaab boo xam ne kanam gi du feeñ buñ la ko sololee ba pare door laa muur nag mbalaan bu mag bi moo tax dama ne jigéen ñi nañuy fekke fi ñuy defaree néew su boobaa ñu xam ne muuraay rek mooy dëkk so ko defalul sa bop dinañ la ko defal jébbal la sa borom ne la ne ko sa jamm bu jigen bangi santan santal nga ko def bu defé al khair fa xayr su deful nag tay defal nañ ko ko jébbal la ko yow borom kon jigen dafa wara a ko xamanteni ni da fay ar bopam bu mu dugg mukk ci war borom gëna ni ko yalla sant mu mel bu ko melé rek ñaare war war boobu du am mbokk yi nan ngay xamé ni sa soxna mi ngi lay war wala sa borom kër moy muy fenn lu bari jigen bu bari lu muy fenn rek boo ko xoolee ba ci biir ma lay wax lu la wax du dëgg fii laa demoon boo demee doo ko fekk fekk ko feneen nangam ak nangam wax loo ne du dëgg jigéen bu koy def ñaare rek xamal ni ma ngay war borom kër wala borom kër li ngay xamee ne dafa dafay war fen lu bari wàcc jubal si woo si kër gi fay laa demoon te fekk demoo fa woon di wax loo xamante ni du dëgg ñaar bu def rek war mi ngi ci digg mi ngi ci biir kon loolu dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a moytu ndax warante bobu su yagge rek fay indi li nga xamne mom moy fasé fase te sëy ku nek xam na ne dafa war a nekk nga wóolu sa soxna ba nga xam même bu la waxul sax xam nga ne ki li muy wax deug la mais bala wax sax ndax nga gëm ko yow tam nga sa borom kër bala sa bala sa borom kër di wax rek nga gëm ko dina naa bi gëna neex si jëkkër yi mooy jëkkër bu deug gis nga sa borom kër bu dëggoo yow ko yëgante do am problème do bëri sikki téléphone ko xam na ni kii ku dëggu la waaye góor ñaare balay fen di la fen di fen mooy waral mooy waral yëddu beeg xool téléphone yeeg xam nga jigéen di ko yàlla dina dafa fiir su ko defee nag bu yàggee loolu dafay indi li nga xamante ne moom mooy tas say yooyu yàlla ci yàlla musal ba beneen bi bokk na ci liy tas say yi mooy li ñuy wax ash'ur bil malal mooy ngeen dem ba yéen ñaar ñëpp ngeen yokkat ci sëy bi ngeen sonn ci sëy bi ngeen tayal ci sëy bi loolu li koy waral mooy sëy boo xamante ne nii toujours li ngeen daan def bi ngeen di door a maye ba ngeen di màgget noonu rek mooy ngeen def yow xam nga ni sa sër sa moom ba wàccee ci jën rek lay toog benn grand bu rek lay sol yow bu góor gi tam nga ñëwee salaamaaleykum salaam nga toog ci kolo bi jeex du ngeen changer avis du ngeen changer vie loolu du yàggee yokkat parce que doomu aadama mënu dundee noonu doomu aadama gis nga da ngay julli jàng alxuraan naafila def lii def lii def lii parce que yooyu ngay def noonu mooy tax ngay sawar ci li ngay def waaye benn mbir boo ci saxee bu yàggee da ngay yokkat kon sëy li nga xam ne moom moo koy gën a dëgëral di ko gën a euh, màggal mooy léeg-léeg ngay changé dama koy wax sama mbokk jigéen ñi ma ne la sa coiffure bopp sax danga koy changé léeg-léeg ba neenal sa borom kër benn façon sol chaque jour grand boubou rek sa sañse chaque jour marinière rek mooy sa sañse chaque jour ay lett yu jëm si ginnaaw rek déedéet danga koy varié su ko defee moom chaque jour day gis si yow lu bees loo xam ne gis ko ci woon day gën a sawar ci yow mom bu góor ki tamit muy changé eh, ay femam eh, ay waxtan muy waxtan eh, ak yow léeg-léeg mu ñëw indi la kado ah tey mom dama damaa rek indi la kado xam nga jigen dafa bëgg bu ko yek su ko defé day kontaan day titul ah sama borom kër ah, bi bëgg na ma man tam dama gëna gor gor waye ko xam sa ko yow ñëw loxoy kese wax ji mu neex nga tëjee ko rek bu yagge sey bi da fay nekk lo xamanteni ni metu rek luy gaawa tas lay doon te loolu nekk lo xamanteni lu jaatu benen bi moy bëri wérante ak xuloo dafay gaaw a sëy man toujours damay préférer ne jigéen bul nangoo di weranteeg sa borom kër loolu loo xamante ne nii yàlla moo ko santaane wala yonent bi sallallahu alayhi mu nar la saa jàdd loo bu wax ak moom ba mu dégg la si biir àdduna bu dee weex na nga na mu xonq na nga ne cooy jàmm am waaye weex na nga ne ko weexu ñuul sa bët yi neexu takkal say feer ah nangam ak nangam werante ba daal di jooy léeg-léeg werante bu ndaw man naa dem ba tas sëy te yonent bi sallallahu alayhi wa na man maay njiitu kër si àjjana koo xam ne day bàyyi werante donte kon li muy wax dëgg donte kon yaa ci dëgg sax nga bàyyi werante bi yonent bi nee na kooku maay nekk njiitam keroog yow ma xiyaam kon jigéen ñi nañuy moytu werante sa jëkkër bu la indi lay werante bu ko ci topp xoolal ndax kii lii jar naa werante am déet werante bi fan la may yóbbu man nan laay xool ba convaincre ko ba nga xam ne lii muy weranteeg man dina ko bàyyi dina ko teg ci suuf noonu ngay ne su ko defee seen ànd dafay nekk loo xamante ne ni lu neex lay doon te xam nga werante bu yàggee da ngeen di wuute te yéen bi laa tax talifu fa tax fa tax talifa qulubakum bu leen di wuute bu yàggee rek seen xol day wuute bu fekkee du ngeen bokk gis-gis mukk bu kii gisee nii kii gisee nii ngeen dëkkee ko bu yàggee seeni xol mooy wuute te bu xoolee wuutee rek tas sëy bi tas moo ciy mujj te xam nga ni jigéen li gën a neex ci moom mooy muñ bañ a nekk koo xam ne dafay ñaf ñaw ñaw làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko laajee ban jigéen moo gën ci jigéen ñi daf ni jigéen joo xam ne saa bu ko xoolee kontaan soo ko digalee mu def loo ko wax mu topp la ca loolu nga ne jigéen boobu mooy jigéen bi gën ci jigéen ñi waaye yow léeg-léeg booy wax dara sax da ngay hésité ndax dina ma ci topp noonu la amee góor ñu compliqué ñoo xam ne tamit seen soxna mënut a wax lu leen lu leen convaincre lu ñu wax ñu ne du su yàggee nag comme yow jigéen yow yaay toppee yow miy topp yaay ci neex deret bàyyi la nga xamante ni moom mooy werante ko nga xam ni yow ki nga xamante ni yow yaay ko soxna si werante mënoo ci am sa xolu borom kër surtout nag bu fekkee yaa koy gañe toujours ci werante bi su yàggee day yëg faible bu yëgee faible da naan ah kii daal moom léegi da lay jox beneen place boo xam ne bokkut ak place yërmande bi mu waroon am ci yow ak cofeel bi nga xamante ni moom la waroon am ci yow te xam ngeen ni mbokk yi sëy xam ngeen ni mawadda ak rahma ñoy làmboo sëy bu ñaké ci sébe rek wéranté man nako dindi te bu sa ñaké rek sébe da fay nek lo xamné luy rouss lay doon benen bokk na ci li nga xamné ne day tas moy mooy alxiiratu fir suñu jangoro ñun jigéen ñi suñu jangoro fir day tas di li ñu tuddu xol ba gis nga war te gis sa xol jeex di top sa borom kër am suñu xam ne da leen di jaral ñu sol yéré pa pa tank tank ak tànk mbagg bu yàggee da ngay sof jigéen damay wax ni da ngay mat am fullaak fayda am sa dignité tok fi nga tok bu ñëwé lo ko war defal defal ko li ci dess nga bàyyi mais bu bëggé topp lépp xol lépp lijjanti lépp su yagge da ngay sof sa borom ko da ngay sof légui nak yow boo xoolee ni man day li ma wara def dina ko def yow nak sa diggante li ngay def sa digganteeg sa borom da ngay nekk ko xamni sa sëy da fay neex motax ba waji ba domam di sëy def ne ko iyyaki wal ghira fa innaha miftaaxu talaq maa ngi lay moytandikuloo fiir ndax fiir mooy caabi fase jigéen ju ko yor rek bokk ne doo ko bokk kenn denc ko sa lafu sër di ko dindi par force fecc bunt bi daal cee jaar génn nañ moytandiku fiir bu baax a baax fiir nekk na loo xamante ni dafay tas sëy fiir nag ñaari façon la dafa am boo xam ni moom naturel la si jigéen la ànd wala si nit la ànd si góor ak ñëpp la ànd yàlla sax dafa fiir nee na man damaa fiir ndax li ma santaane bugguma ngeen koy defal keneen ku dul man li ma moom bugguma ngeen koy defal keneen ku dul man loolu moom la ñuy wax alxiratul mahmuda góor dafa war a fiir fiire sa soxna ba nga xam ni suy génn dina solo nu war a sox soloo fiire ko ba nga xam ne di nga xam fu dugg ak fu muy génn li muy def mu teg ko ci yoon loolu mooy fiir bi ñu bëgg beneen fiir bi nag mooy bu bon bi fiir boobu mooy bii ànd ak ñaaw njort boobu baaxul góor moom ñaari fiiram lay ànd ak ñaaw njort am dañuy fiir ba nga xamante ni bu seen jabar waxe sax ñu ko waxal eh ki kay moom te lolu xam nga ni inna ba'da dhanni ismun la yalla wax lenn si jortu bàkkaar la fiir googu mo ñi waral ñu jigéen ñi ñuy jëw léeg-léeg ki nga bañ fiir ko fo tol yaa ci dara diko jëw ta xam ngeen ni jëw bokku na ci bakkar yi gëna danger ndax yalla du lako baal ka nga jëw rek mo lay baal te bu fekke da nga mere nit ki wala nga koy fiire ba diko jëw yaa ngi jël say tiyaaba di ko ko jox te loolu duñ ci bayyi xel ka ngay jëw di yàq deram ak lu mu munti doon ak lu mu la munti def nga di ko jëw yaa ngi jël say tiyaaba di ko jox bu fekkee fiira la ci yóbbu woon wala soxor wala yu mel noonu xamal ne yow yaa ngi koy jox say tiyaaba kon nañ ci bàyyi xel bu baax fiir mooy indi kiñaan fiir bu metti wala fiir bu bon mooy indi kiñaan ki ngay fiira da ngay dem ba da koy iñaane soo sañoon mu dee soo sañoon ay doomam torox soo sañoon du am dara ndax loolu fiir moo koy indi fiir mooy dem bay indi njabar ngay yabar ki ngay fiire ndax bu mu génn ci sa wala mu tass moy dem sax bay indi yëpp léeg-léeg ngeen gis jigéen bu tëdd ba guddi war a jàpp julli naafila wala nga tudd nelaw ngay yeddu ci ay gudd fiir mo lay def lolou te gis ngeen euh, lolou bu amé dangay dem ba yow sa yaram dootul wér gis nga fiir bu yàggee sa wér bu yaram dafay sooxe ndax fiir ni muy yàqee jikko ni muy méttee ci xol noonu lay yàqee wér bu yaram dootoo nelaw waaye mbokk yi est-ce que xam nga ni fiir day dem ba reyloo nit nit day dem ba rey ndax fiir kon nekkati fiir am na ci boo xam ne bu bon la nañ ko moytandiku bu baax a baax a baax te fiir bu metti boobu mën naa dem ba indil borom sax weddi yàlla wala yoon sax te loolu yemul sax léeg-léeg si ñaari way denc bi di nga gis koo xam ne fiir gi ni fiira nit ci jaamu yàlla ga muy jaamu yàlla ci diina ji mu nekk ci sellal gi mu nekk ci wéetal gi mu wéetal yàlla si dafa ci fiir ba iñaane ba bañ ko kon jikko la boo xam ne bu ñaaw la jikko la boo xam ne dafay tas sëy beneen bi nga xam ne xëy na mooy bu mujj bi mooy bokk na ci liy tas sëy yi seytaane ci bopp mbokk yi gis nga seytaane dafay tas sëy seytaane euh, dafa am benn waaye benn euh, journaliste bu tase woon ak benn jinne benn jinne boo xam ne jinne bu tuub la muy waxtaan ak moom bokk na si jinne bi lu mu ko wax ne ko saabu bu ma xëyee ba ma tuubagul dama daan yebal sama njaboot ne leen dem leen ngeen tasaaroo ci biir nit ñi ngeen def loolu leen ay yu bon ndax man mënumaa dugg safara man kese ndax yàlla mayoon na ma ne su may dugg safara dinaa am ñu may àndal ci jaamu yàlla léegi nag su ngoonee seytaane dafay ñëw toog daal ne doom bi mu yónni woon ñëw leen ku nekk na wax li mu def kii na ko man ne topp naa nit ki di ko topp ba mu njaam mu ne ko defoo dara keneen ñëw daal ne ko man de fex naa ba nit ki sàcc mu defoo dara noonu lay koy di laaje benn par benn ba kenn ñëw ne ko fexe naa fexe ba mu fase jabaram mu ne ko kaay yow yaay ku baax ki ndax xam nga ni mbokk yi tas bu amee doom yi benn ku góor ki yar ko wala ku jigéen ki mu am beneen yaay wala beneen papa doom yooyu li ci ëpp bu ñu amul chance ay bande la ñuy doon ay wëyu la ñuy doon ay doom yoo xam ne ay rànk ña la ñuy doon ndax leen yar ki nga xam dafa jaalo mën dem tuubi ki nga xam ne dafa sàcc mën naa dem tuubi yàlla ba jéggal ko mais imagine doom yooyu da judd si ñi nga xam ne dañoo tas moo tax seytaane li mu gën a bëgg mooy ñi nga xamante ni dañuy tas da liggéey nag da ciy liggéey lu baree baree baree bari pour lan sëy yi di tas jëlee ci jaabir radiallahu anhu liy firndeel ni jinne ji li mu wax dëgg la yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadis boo xam ne jaabir moo ko solo mu ne iblis bu xëyee dafay teg li nga xamante ni mooy chaise am da koy teg ci kaw ndox la koy teg toog nee na su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñooy ay garde corps am ak ay suqam daal di koy wër su ñu ko waree mu ne kenn loo def kooku ne ko def naa nangam ak nangam mu ne ko yow demal fee defoo dara mu ne noonu la leen di laaja ba kenn ñëw daal ne ko man de bàyyiwuma ko ba mu tas ba lu dul tas naa digganteem ak diggante jëkkëram wala jabaram su ko defee mu ne ko kaay jegeel ko ci wetam ne ko yow yaay ki ma gën a jege yow yaay ki nga ki ma gën a bëgg mbokk yi bari na sëy yoo xamante ne nii ay njort moo koy tas te njort yooyu seytaane moo koy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy xamal ne seytaane dafay tax sax nit ki. tey di nga sa darab bu weex daal sa jëkkër yow tudd dafay mel ni lal bi dafa karaj mu ne seytaane daf ciy sànni ay ay bant yu sew ak suuf ba bi dafay mel ni lu karaj su waaja dafay mer mu ne su meree mën na ci xuloo soxnaam ba loolu sax tàggale seen diggante yéen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu seytaane moo koy waral mu ne léeg-léeg togg sa togg ba mu neex jox sa borom kër mu lekk mu saf ko leneen wala mu mel ni dafa karaj fekk dafa am lu ciy sotti suuf wala lay mel noonu su ko defee loolu di ngeen ko xuloo wax mu nekk wax bu sew ba tas am si moo tax sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu su amee mu ne bul tax mu tax mukk nga faat nga fase sa sa soxna seytaan la loolu nag li koy waral léeg-léeg mooy ñun jigéen ñi léeg dañuy sàggan ci tudd yàlla ndax xam nga booy tudd boo nee bisimilah tëj sa bunt seytaane mënul tijji bunt boo xam ne bisimilah lañ ko tëjee booy loolu sa nga wax bisimilah dootu ci mën a def dara booy togg looy def nga wax bisimilah jiital ko ci seytaane doo ci mën dara mais bu fekkee dañoo sàgganee tudd yàlla dafay waral seytaane mën a dugg suñu biir waaye dafay tas sëy yi nga xamante ne moom la ñuy sëy ku ne xam ne ne seytaane dafa am rôle bu rëy rëy rëy ci tas ay sëy loolu maa ngi leen di ñaan képp koo xam ne bu nga ci gën a xam ay leeral nga jokkoo ko benn ay benn ustaas bi ñuy wax Ibrahima Gueye loolu rekk mooy rôle moom xam na ci lu bëree baree bëri ci seytaane ni muy def ba yàq li nga xamante ni moom mooy sëy yi ñu ko may tëdd bu baax a baax beneen bi mooy njabar seytaane rek léegi mooy siy xiir nit ki te gis ngeen njabar ak bu mu mënti doon dafa xaraam moo xam noob da ngay jox sa borom kër lu pour mu gën laa bëgg la wala nga jox ko waaj pour mu takk la wala nga def ko pour rafetal seen diggante bu mu mënti doon dafa xaraam kay njabar moom waxuñu ko laa yuflihu saaxiru xëy ataala ataale yàlla kay jabar mom fu muntu joge mom du taxé yow ma koy def tamit yonent bi sallallahu alayhi wa ne saa boo demee si ab kat wala gisaanekat wala seetkat kat mu wax la nga gëm weddi nga liñu ñuy won ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ta xam ngeen ni ku weddi liñu ñu won ci suñu sang bi moy yow yéefari benen bi mu ne képp ko xamni sol nga saw daal ñun jigéen bi dem ci jabarkat mu ne ko boo jullee ñeent fukki guddi yàlla ko te tey gis ngeen ni ñu njabarkat yi ni ñu amee promotion te dama naan ñi leen may promotion mooy jigéen defal ma loo xam sama borom kër daf may gën a gën a bëgg nga defee ne ndam nga nekk baaxut yàgg yàgg day deñ bu dañee ba mutul sëy day tas defal ma loo xam sama sama wujju dafa tekkee sama wujju dafa jur doom ju baax nga def ko xëy na léeg nga gis résultat nga def ne am ndam wallahi yaa ngi def loo xam tuubul na ci safara ci kon ñu moytu li nga xamante ni moom mooy njabar ak lu jubluwaay bi ti doon moo xam loo ci ti jublu nekkul loo xamante ni lu baax la mbokk yi ci gàttal li ñuy tënkee loolu li ñuy jeexale mooy lan mooy solution bi pour sëy solution bi daal ci gàttal mooy wàññi can yi ba xale yu góor yi mun a dem takk ay soxna te li ñu leen di laaj di bari beneen bi mooy ragal yàlla mooy ku góor ki mooy ku jigéen bi ku ci am soxna ku ciy waaj a takk soxna ku ci am borom kër na nga ragal yàlla sa diggante ak sa borom kër boobu na nga ragal sa diggante ak sa soxna te xam ne lépp looy def ci kaw suuf ëllëg boo dee deewee ba dugg si biir bàmmeel yàlla na yéex dina nga laaj li nga doon def. Yonent bi na képp koo xam ne nga ci bàmmeel dinañ la laaj loo nekkee woon ci àdduna benn par benn ba mu jeex duñu bàyyi dara lépp looy wax ragal ci yàlla maa yarfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid boy sey jappé ko mu nek jaamu yalla boy sey jappé ko mu nek lo xamni da ngay jihad surtout jigen ñi so ko defee téye sa borom kër limay wax ben lam du yëngu su borom kër bi defee lu bax nga dak ko su defé safan nga defal ko lu bax ndax dañ ne ki nga xamanteni ne daf lay def lu bon nga da ko def lu bax su yagge day ñew ci yow lu ni ne fay ñew par force waye bu ngeen yeme rek sey da fay nek lo xam luy gaaw tass la mbokk yi dañuy jégalu di yemale fii waxtaan bi xëy na sax gën naa yaatu lii li ñu bindoon mais pour gagner temps bi la ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dëgëral suñu sëy yombal suñu doom yu góor yi li ñuy takkee soxna waaye ñun jigéen ñi tamit ñu yombal li ñuy laaj ci sëy yi te xam ne loolu day maa anzal allahu biha min sultaan yenn laaj la yàlla wàccewu ko fenn amul ci sëy sëy la sant li nga xam ne mooy sunna mooy can ba ngay joxe si jàkka ja mooy takki soxna si mu lew la doom bu la neexee keroog